jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam ne gi suñu feebareeg suñu feebaru suñu bankeeg suñu bankut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toiletu toilette bu rafet sax duñ jàpp bu ñu toiletu toilette bu rafet rek ñoom duñ jàpp lu tax parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay te cëlmaay gi liñ ci def dafa rafet ci ñoom loola su boobaa ak guñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka wa taala tagg fii xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu omat yàlla ci sidda wa raxa suñ amee suñ amut suñ ñàkkee suñ feebaree suñ liwee suñ naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka wa taala wal munfixiina ñi nga xam ne dañuy joxe dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ñu ngi koy jox yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr seen alal ña ngi koy jox ci anamu lu baax ci anamu jiw guddi ak bëccëg léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko léeg-léeg ñu jox ko ci secret saa su nekk ña nga joxe seeni alal wal mustaxfirina bil ashaar ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashaar ci waxtu fajar waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu nodd fajar te nodduguñu fajar diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli suba ba noppi ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdullah ibnu Amar radiallahu anhu daf daan julli ci guddi su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Naafi sal jaa saxar Naafi est ce que waxtu fajar bi jot na bu ne waaw rek mu tàmbali du'a istixfaar du'a istixfaar tàmbali jégalu boromam tàmbali jégalu boromam tàmbali ñaan boromam ndax waxtu jot na waxtu woowu bu jotee. sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii daal ne yéen jaam yi ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko régler ndax amu fi ko feebar ku bëgg ko ko faj ndax amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxlem di laaj boolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaayil wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu gisaa nga ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi du wax ne yaayam dencal diw ba mu yeewu wala papaam moo tax ñaare gone yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw léeg-léeg ña nga yeewu ay sept heures léeg-léeg sept heures et demi ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar entreprise bu nekk daañ ko fa joxe waaye nag am liggéey daf leen di jege daf leen di jafe lu tax parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka mi ñëw ak yàlla di régler problème yi nit ñi daf leen di fekk nelaw te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw bu demee kuy régler sa problème defe naa dana xaw a jafe tuuti moo tax waxtu woowu kenn wuru koy nelaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne ah mu ne ko jógal mu ne ko ah mu ne ko Fatima xanaa xamu ne waxtu wi ci li yàlla y séddale wërsëg yi waxtu boobu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yaasunallaah du ñu mooy yàlla ma amaruhum du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu boobu ëppee ne nelaw moo tax yàllaa ngi yonent bi a ngi wax kon rakaata fajri xayrum na dunya wa ma fiha ñaari rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram kon nag waxtu boobu ëppee ne nelaw kon nag juróom-ñaari meloo ngi noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg mu ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom nekk ay muñkat nekk ñu dëggu nekk ñu ommatul tabaraka wa taala nekk ñu joxe seen alal guddeeg bëccëg waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jégglu bu fajar ga jotaan bu dee fàq ba baa ñuy julli suba ba noppi yàlla tabaraka wa taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel melo yooyu mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy di seede ne laa ilaha illallah dana leeral fii it ne islaam rek mooy diine ji yàlla reconnaître dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gi mu ommatul yàlla daal di ciy teg nag li nga xam ne mooy réeru ahlul kitaab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu àttey suñu borom tabaraka wa taala li tax aaya ji wàcc sababu nuzulam nee nañu bi yonent bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam al madina ñaari fóore ci fóore yi saam yi dañoo ñëw ci moom naka ñu agsi xool ko rek daal di xam ne kii day mooy ki seen téere doon wax ñoom ñaar ñu daan ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowee muhammad mu ne leen waaw sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ndax yaay ahmad mu ne leen waaw ñoom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj boo xam ne soo ñu ko waxee tekkil ñu ko daañu la gëm daañu la dëggal mu ne leen laaj leen ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu ban seede mu gën a mag gën a rëy ci seede yi ci téeréb yàlla bi salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen shahida allahu annahu la ilaha illa hu ñoom ñaar ñëpp ñu daal di ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah aaya jooju moom lay bëgg a jàng nii looloo ko tax a wàcc ba demee ci tafsirul qurtubi ca saq bu njëkk ba wala boog jukki bu ñeenteel ba ca xëtum ñeent fukk ak benn wax ji ma nga ci ba dama ci tafsirul bahrul muhit ba tey ca jukkib ñaareel ba xëtum ñeenti téeméer ak benn wax jooju ma nga ci yàlla nee na shahida allahu yàlla seede na yàlla leeral na yàlla xamle na ne annahu li wóor mooy laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku yàlla nee na laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul kooku wal malaikatu malaaka ñi it seede nañ ne laa ilaha illa huwa wa ulul ilmi borom xam-xam yi it seede nañ ne laa ilaha illa huwa kon ñetta ngoog yàlla seede na ne amul benn yàlla ku dul moom malaaka yëpp seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom waaye borom xam-xam yi seede nañ ne amul benn yàlla bu dul moom yàlla nag qaa'iman bil qisti bi mu koy seede mi ngi taxaw cig maandu yàlla ku maandu la ci bépp anam yàlla ku maandu la ni muy séddalee àppi nit ñi ak wërsëgi nit ñi ku dul woon moom doo ko mën a séddalee noonu mu koy séddalee tabaraka wa taala yàlla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am adduna wala ñaata weer wala ñaata at jur si bu toll noonu la la lay wateel yàlla fi nekk nii ku am soxla sa oto rek dina la may oto yàlla ku am soxla soo xam ne welo mën na koo dox dina la may welo waaye ku amul ci ñaari soxla yooyu benn ba mayu la ci benn it dina def ci sa poos luy mën a paas di dem fa ngay dem yàlla dana la may wérgu yaram may keneen loo xam ne xaalis bu bari la waaye it nag ñaare léeg-léeg mu teg kolal te lay dem benn waaye dafa mës a toog ne moom ren fokk mu am fukki junni cinquante mille moom munu koo ñàkk am ren mu cay yëngatu di yëngatu ba am cinquante mille waaye ba mu ko amee ci bis ba la waru fas fas wa daal ko tànk ba damm ñu tabax ko laaj ko ca cinquante cinq mille fukki junni ak benn kooku su yëgoon kon du laaj du du du ne fokk ma am fukki junni yàlla ku maandu la ci ni muy séddalee doomu aadama nag moom mooy calculer lu tax waa ji am mbëbb mu bees te man awma ko waaye moom mi am mbëbb mu bees am na yow loo am leneen loo xam ne waa ji li nga am moo ko gënal mbëbb mu bees moomu yàlla nun lay séddalee tabaraka wa taala kon yàlla qaa'iman bil qisti ku maandu la borom xam-xam nag ulul ilmi yàlla waxut ne borom xam-xam yépp déedéet waaye xam-xam bi nga xam ne mooy tax a ragal yàlla inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nee na ki nga xam ne ragalut yàlla du borom xam-xam donte jeexal na géej yëpp moo tax imam Xurtubi mi ñu wax ci tafsiram mu ne fii day yàlla wane na fi ngëneeli xam-xam wane na fi it tedd nga ko ulama yi ndax yàlla nee na su amoon leneen ci kaw suuf wala Xurtubi neen su amoon leneen ci kaw suuf lu gën a rëy xam-xam bi yàlla waxee shahida allahu laa ilaha illa huwa wut lum te teg mu ne wal malaayika wut lum te teg mu ne bu amoon leneen lu gën a tedd ci kaw suuf loolu la cay teg mu gis ne kon al ulama loolu moo gën a tedd fii mu daal di fay taxawe doy na it sharaf yàlla tabaraka wa taala wax ci alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla na ma yàlla dolli xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu nekk amul ci kaw suuf lu ko yàlla ne waxal ma dolli la ko ba mu def al ilmu xam-xam moo tax muy wax ci hadis bu ne inna al ulamaa warasatul ambiya borom xam-xam yi ñooy wuutu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ibnu mas'ud radiallahu anhu moom it noonu la ko waxee ca ca nettilem ba moo tax dikk na ci borom xam-xam yi benn latifa boo xam ne daf ne al ilmu wala ilmu al alimi wa aqlu al aqili ixtalafa man za alladi minhuma qad ahrasa sarafa فالعلم قال أنا أحصت غايته والحقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو خم خم أك xel ñoo doon werante fii xam-xam ne ko man li ma am amoo ko xel ne ko man ci man la ñuy xalaate ba gis yàlla xam-xam ne ko man may ki nga xam ne man la yàllay melowoo ñu ne bi ñu waxee nii rek xam-xam daal di ne xel ah xel daal di ne xam-xam wax nga dëgg daal di foon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam-xam ulul ilmi borom xam-xam yi ñoom tam ànd nañoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illa huwa laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku al aziz yàllaay ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al xakimu mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine indallahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina indallahi al islaam aaya ji it ni ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfu tawkiid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne indallahi muy beneen taarif mu door nag al islaam inna diina indallahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mag ñi dañ daan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa ku bëgg a bayal yàlla dañ koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa tey jii ku ma yéene woonu xaalis ba ko yóbbu ci banque da nga may laaj ban banque mooy sa banque bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine compte banque am nag mooy al islam mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko ko yóbbul foofee soo ma doon yéene xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay ma yàlla day wax ne ah da ngay perte mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaxi xayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin mooy kuy bay te ba yoo tool tool yàlla mën ngaa ñaq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn du fa bay kuy bay da ngay dem ca tool ka nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dina la mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéewal mën na la faa xéewal waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dina ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina inda allahi al islam diine fa yàlla mooy islam wa maxtalafa musta wuute nag musta wuute alladina utul kitaaba ñuñ jox téere yahud ak nasaraan illa lu dut kañ lañ war tàmbale wuute min baadi ma jaahumul ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxalinam yépp di dëppoog li nga xam ne loolu leen jàng yàlla jàngal loolu lañ gisoon seen i téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbalee dikkal waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na naññi waaye ahlul kitaab mosuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikk leen ci ñoom waaye wa man yakfur ku weddi nag bi ayatillahi ci tëralinu yàlla bi ayatillahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba moo di li fi doomu aadama yi am am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla yàggut ci moom fa in xaajuuka bu ñu weranteeg yow bu ñu weranteeg yow boo ne inna diina indilaa islam ba noppi ñuy weranteeg yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen faqul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla waaw fi lay wax loolu yow na nga ne man def naa al istislaamu muy jëbbal sa jëmm jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmmam mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram bi yëpp mooy jëmm soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nag ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fukk bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu roote ji ko lu ko neex def ko ci naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bul kalak sore déet loolu du mën a nekk yàlla boo ne ko jébbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji léegi nag yonent sallallahu alayhi wasallam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji soo dee gone goo xam ne ki gone gu góor nga di lépp sa bopp bi yàlla di lay wax ne déet yow xanaa jébbalu moon sa jëmm ji xanaa jébbalu moon sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a létt ndax moomutoo ko léegi boo dee gone gu jigéen jébbal sa jëmm ji yàlla tabaraka taala di la wax ne ah deel teg sa bopp bi musóor boo ci tegul musóor mu ne xanaa jébbalu ma sa jëmm ji boo dee def yëre yu gàtt mu ne la xanaa jébbalu ma sa jëmm ji kon ku jébbal jëmmam yàlla ni muy mel mooy day fab léppam jox ko tabaraka wa taala benn mag nee na nee na woon suñu borom tabaraka wa taala laka malbasi mu ne ko waaw mu ne wa yaraati wal awliya walaka almidaadu wa mashrabi wal maakalu yàlla yaa moom sama col gi mu ne waaw laka malbasi wa yaraati yaa moom bindukaay bi bindukaay gi muy binde mal awliya njaboot gi yëpp yàlla moom wala kal midaadu daa ji may bind sax yaa ko moom wa mashrabi sama pot bi may naane yaa ko moom wal makalu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom kon doomu aadama day jébbal jëmmam jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal naa la jëmm ji ommatal foo bëgg ma jaar ma jaar fa waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca des nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutuwaati shaytaan dugg leen ci l'islam yépp na dugg waaye nag dugal lii bàyyi la ca des ah déedéet nag loolu de su ko def boo ko defee nag nga ne nag waman tabi an yi ak ku ma topp boo jébbalee sa jëmm yàlla na nga ne ku ma topp ku nekkit day jébbal jëppam yàlla ana wa atbaai ala millati l islam mustaslimuuna munqaaduuna li amrillah man ma képp ku ma topp dañoo ommatu ci diine yàlla ji tabaraka wa taala ommatu gu ma sëkk nag mooy tax nga mën nag door a wax lii tege ci aaya ji di ñëw moo di léeg-léeg ngay seetaan cinéma bu ndaw bu ñuy wax télé ngay gis gars yi di xeex ba mu yàgg am ku génne fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ñu tuddee istislam mooy day yëkkati ñaar loxoom yépp jëmale kaw ne ko nag léegi jébbal naa la sama jëmm ji nga gis waa ji bu ne ko woon ma ginnaaw mu woon ko ginnaaw bu ne ko sëggal mu sëgg bu ne ko laalal sa poos mo bu ne ko bul xasam sax du xasam jébbal ko léppam noonu nga jébbalee sa bopp lépp ndax ki la olimee yàlla mi la olimee moo gën a olimee waa ji fuuf tabarakallahu moo ko daq jam kon nag bu la tabaar bu la tabaraka taala mayem xel lu gàtt gàtt gàtt moom ngay gën a ragal ci ki lay olimee moom ngay gën a ragal tabarakal kon nag aslamtu wajhi lillahi wa man ittabaan soo ommatoo nag yow yonent bi sa gaay yépp ommatu bu booba nag waxul na nga wax lilladina utul kitaaba ñiñ jox téere wala ummiyiina ak ñiñ joxul téere yahudi yeeg nasaraan yeeg watani yu ne ci arab yi nga wax leen ne le ah aslamtum ndax yéen wommatoo ngeen ni ma wommatoo ndax yéen wommatoo ngeen ni ma wommatoo ndax dugg ngeen ci islam fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp wa in tawallaw suñu wanee ginnaaw ba ñu ommatu nag mu ne yow sa jaan wàcc na bu ñu wanee ginnaaw sa jaan wàcc na wa in tawallaw fa innama alayka li la war moom du dara lu dut albalaaxu jotal rek moo la war fa innama li fi nekk daal alayka war na la albalaaxu jotal soo jotalee kudd mooyu moo xam wallahu yàlla basirum bil ibad yàlla ku gis la ñi nga xam ne mooy jaamam yi kenn ku nekk xam na fi nga xam ne foofu nga nekk fi nga taxaw yàlla teg ci ne inna alladina yakfuruna bi ayatillah ñi nga xam ne dañuy weddi aaya yàlla yi dañuy weddi tëralinu yàlla dañuy weddi ay luwaay yàlla wa yaqtuluuna annabiyina ñuy rey yonent yi bi xayri xaqin te teguñu ko ci genn dëgg wa yaqtuluuna te ñuy rey alladina yaamuruuna bil qist ñiy digle maandu weddi aaya yàlla yi rey yonent yi rey ñi nga xam ne dañuy digle maandu min annaasi te bokk ci nit ñi fa bashirhum na nga bégal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu métti moo xam ne ma ngi leen di xaar ëllëg ñetti melo yii ñu melo woo melo yu doy waar la mooy al kufru bi ayatillah wa qatlul anbiya wa qatlu duaati ila allah dañuy weddi aaya yàlla yi rey yonent yi waaye di rey ñi wuutu yonent yi muy duaat yi wootekat yi xam-xam yi wootekat yi diine yi nee na ñi leen di ñuy weddi yàlla di rey yonent yi di rey ñi nga xam ne yu amuruna bil qisti min an naas yàlla na ñu def loolu fa bashirum na nga leen bégal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal moo xam ne mi ngi leen di xaar aliin ci mbugal mu métti la ñooñu kon jar nañoo bàyyi xel fexe ba bañ cee bokk yàlla kenn du ko weddi waaye yonent yi alayhi salaatu salaam deesu leen rey ibnu kasir nee na banu israil am na benn bis ñu rey ñetti téeméeri yonent lu jiitu ñi di jot dañoo xëy rey ñetti téeméeri yonent qatalat banu israil talaata miati nabi min awali nahar wa aqamu sawqa baqlihim min axiri ñetti téeméeri yonent daal rey nañ ko teewul ñu taxaw see taxawal seen marché bi nga xam ne te la ñuy jaayee ñebbe lu jiitu midi di jot kon loolu seen jikko la woon rey yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñooy woote ak ñi nga xam ne ñoo leen woote tey woote dëgg borom tabaraka wa taala mu ne fa bashirhum bi azabin alim na nga bégal ñi weddi yàlla tey rey yonent yi tey rey ñi woote jëmu ci yàlla na nga leen bégal ñoom ñëpp bi azabin alim ulaayika ñi def jëf ji alladina mooy ñi nga xam ne xabitat amaluhum seen jëf daa sippiku seen jëf dafa sippiku seen jëf dafa yàqu fi dunya ci adduna waaye seen jëf dafa yàqu ca al axirati al axira fi dunya wal axira wa ma lahum du ñu am bu yomal xiyaamee min naasirin ci kenn ku leen di dimbale di leen mën a fegal fegal loolu nga xam ne moom la tabaraka wa taala namm ci ñoom xabitat amaluhum jëf ju sippiku nag mooy doomu aadama mën nay jëfal yàlla ndekete li muy jëfal yàlla jëf jaa ngi sippiku loolu tam lu jar a moytu la mooy yaa ngi defal yàlla lu baax waaye li ngay defal yàlla ci lu baax fi nga koy denc moom la moo dul ab dencukaay nit bu jóge woon fii tey di jaayi mburu foo xam ne fii mooy lu mel ni Thiès te yoon wi taxu koo baax nga yor sa benn R4 li ci ginnaaw muy bunt bi ubbeeku muy bonde nag di dem ci pax yi boo muytul boo àggee Thiès li ngay dese ci mburu du mat juróomi mburu donte dafa fees te pourtant yaa ngi yóbbu mburu Thiès moo di doomu aadama mën nay defal yàlla tabaraka taala lu baax koor gi ñëw nga woor lépp julli juróom na sa asaka dem mag waaye yaa ngi def yeneen yoo xam ne day sippi sa jëf yooyee loolu la doomu aadama war di moytu mooy booy def lu baax da ngay fexe bay denc lu baax li fu jaral fu mën a denc nga xam ne dafay ñoŋ waaye def lu baax denc ko mën nga koo denc fi mu denc du baaxu nit ko dafa demoon fa li ñuy wax Europe doon liggéey di wuti lu baax yàlla def li muy liggéey biir yi muy am dafa bees xam nga métro dafa rafet su ko amee du ko nangu yóbbu ci banque bi daf koy denc néegam waaye fi mu koy denc am na janax ji yëg ni moom fi muy denc lii baaxul janax ji nag nekk ci di liggéey moom it moom muy liggéey denc janax di liggéey di kecc kere bi nga xam ne ni ñibbi si jot na mu seet fa mu dencoon fii ko fa dara loolu mooy doomu aadama buy jëf te li ngay jëfal yàlla tabaraka wa taala fi nga koy denc denc wut kon kuy defal yàlla da ngay fexe ba jëf ji bu mu yàqu mooy bu ko say jikko say yàq bu ko saw doxalin yàq loolu mooy xabitat amaluhum seeni jëfa si beeku yàlla na ci yàlla musal yàlla nee na alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñii nga xam ne uutu nasiban min al kitaab jox nañ leen wàll ci téere bi jox nañ leen wàll ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala yudaaw nag ñu di leen woo nag ila kitaabillahi jëme leen ci téere bi yàlla li yaxkuma baynahum ngir ñu atte seen diggante summa ginnaaw ga bañ leen attee yatawalla ma ngay dumooyu fariqun ab groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ña nga wane ginnaaw moo di dafa am ci ahlul kitaab ñu ma sa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko ñun de dañoo am li ñuy tuddee nit ku njaaloo ñaar lañ ñu bëgg nga atte leen te nag ñun nag gisuñu ci suñu téere lu dul atte boo xam ne bi daal mooy atte son la waaji salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen dem leen ngeen indi tawraat ba ñu indee tawraat ñu fekk ca rajmu ñu daal leen di rajmu bañ leen rajmoo nag ñu daal di mer mer moom moo tax nag yetta wallaw nañ ña nga du mooyu su ko defee kon wahum mu'ridun ña nga wane ginnaaw lànk yàlla ne xanaa gisoo ñooñu téere bi ñu yor fa mu tibbee fa la alxuraan tibbee booleeg téere boobu ba noppi ñu woo leen ci téere bëgg leen atte ñu wane ginnaaw zalika li tax nag ñu am fit wi bi annahum ñoom dañu ne qaalu dañu ne ñoom lan tamassana naaru lan tamassana naaru sawara duñu laal illa ayyaman maadudaat lu dul ay fan yu néew rek nee nañ daal sawara dañ leen laal gaa waaye fan yu néew lay doon mooy arbaina yawman ñun fukki fan muddate ibaratihim lil ijil jamono ji ñu jaamu woon naka wa nga xam ne moo nekkoon ci jamono yi Moussa ñu ne sawara dañ leen laal waaye 40 jours rek la leen di laal waaye sawaraw àllaaxira moom comme laal 40 jours dana doy waar lool lool. ndax sawaraw adduna wi ku la fi diggoon léegi 13 millions ne la nag léegi da ngay téye xalu sawara 13 minutes boo moytuwul doo am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaare ku ne ko nijee rek sànni rek ngay def waaw moom doo ko téye di ko wàcc kon nag wax ne léegi sawara dana fa am 40 jours. rek laa fay am loolu ëpp naa rekku ndax foofa daanaka benn fan sax ëpp na fa mu dégg sax ëpp na fa tubarkal ñii nag li leen ko yëg mooy waqarrahum daf leen a war fii diinihim ci seen diine ji maa kaanu yaftaruuna ci li nga xam ne moom lañ doon sos waaye fa kayfa fa kayfa ci soo gisoon isaa jamaanahum bis buñ leen dajalee li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba fii amul sikk sàkk ne bis ba dana ñëw yàlla ne bu keroogee boo gisoon leen def daañu xam ne sawara quarante jours la may laal kenn du ko wax waaw waaye nag loo gisul lu nekk doo xam nu mel loo xam nu mu tàngee it doo xam nu mel moo di sawara wee ca àllaaxira tàng na tàngoor woo xam ne ni sawara wu adduna tànge mu ni su ko misaal daanaka ci sawara wale waaw tàng na lool fa kayfa isa jamaanahum li yawmin laa rayba fihi bis boo xam ne bii laa rayba fii amul sikki sàkk muy saa su nekk nga dégg aw gaay yu fi romb ñu ne ñu ne dem nañ tey ci suba am na ñu dem tey jii boo demoon tey ndeysaan ca hôpital ya léeg-léeg nga fekk fa ñoo xam ne léegi lañ dem ndeysaan am na ñoo xam ne léegi lañ leen rob am na ñoo xam ne ña nga ca robukaay ba di rob léegi doomu aadama yëpp ñu ngi ànd di dem laare ba fii amul sikki sàkk koo xam ne daf la fee fekk nga jékki-jékki mu bàyyi la fi di dem bu la waxee ne maa ngi dem barab sàngam wala am ku la ne kii barab sàngam la jëm kooku mel ni tabaaraka taala war ngaa gëm ni ñii daa am fu ñu jëm te it damaa gis ne képp kuy dem say mbokk dañuy yuuxu di jooy mel ni affaire ba fañ jëm dañ faa sa warut dañ faa sa warut waaye yow foo xam ne ku fay dem da ngay jooy say mbokk yi jooy kenn ku nekk boo fay bëgg a dem da nga faju da nga dem hôpital Fann da nga dem principal da kenn ku ne da nga ko seeti pour bañ a dem foofa waaye yow tee ngaa waaj ba jekk ndax nga sawar ca dem nga foo xam ne fii kenn sa waru fa mbokk yi loolu jar naa bàyyi xel lool isa jamaanahum li yawmin laa rayba fii wa bu feet ñu matal nag ñu fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam jëfoon waxum te ñoom nag laa yuzlamuuna kenn du leen tooñ yàlla neen yomal xiyam bakkan bu ne la nga jëfoon laa lay fay ba mu sëkk amul tooñ yàlla doo dem yomal xiyam mu naan la da nga may muñal ba la quinze at da nga may muñal ba la la seet déedéet yàlla ku ne salaamaaleykum rek mu la sa jëfa ngi nii moom kay yow la nga fa def kay moom ngay xam mooy lan wa wajadu ma amilu xaadiran kenn ku ne da nga fekk la fa la nga fa jëf mbir bi kay mooy léegi ndax la nga jëf moom ñeme nga caa dem wala ñi moo caa dem wala yooyu waaye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xam ne moom nga bëgg moom nga fa jëf kon bi yàlla jege jógee ci aaya yooyu di wane ne moom rek yàlla di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni di wane wérug diinul islam wér gi mu wér mi ngi fii teg nag tabaraka wa taala ni muy dimbalee al muslimuun ak l'islam dimbali leen dëgëral leen ndax mbir yëpp mi ngi ci loxo yàlla tabaraka taala mooy yëkkatiku yëkkatiku mooy suufeel ku suufu ku torox ku nekk mooma ku tedd ku nekk mooma tabaraka taala mi ngi nee di ko wax ci ay yi nga xam ne ci lay jëm sababu nuzulam muy li ko tax a wàcc moo di bi yonent bi ubbee Makka sallallahu alayhi wa sallam daf ne ñi nga xam ne ñoo ko waroon ci saxaaba yeeg ñu bari tabarkalla ne leen moonte nii ñu ubbee màkk de daañ ci jote faris ak ruum daañ ko jote nun munaafaqoo ne ak yahud daan ne xëy haata xëy haata loolu nag de mënta nekk moom faris ak ruum ñu dem ba ñun jullit ñu moom ko loolu de moom moom daal di ku leen tabarakàllah waaye yàlla tabaraka wa taala di leen tontu ne leen xul waxal yow yonent bi allahumma ee yow yàlla baatu allahumma asluhu ya allah ya allah la woon ñu daal di xasaf li nga xam ne mooy adatu nida yaa gi ñu dindi ko wacc mu def allahu ñu remplacé li nga xam ne mooy yaa nida googu miim mu saddada muy ma allahumma moo tax mu dekk léegi ee yow yàlla malikal mulki yow mi nga xam ne yaa moom nguur tutil mulka yaay jox nguur mën tasaawu ku la neex wa tanziu yaay nocc nguur al mulka nguur mim man tasaawu jële ko ci ku la neex yàlla wa tuizzu yoway teddal man tasaawu ku la neex wa tudillu yoway gàcceel di toroxal man tasaawu ku la neex ndax bi yadikal xayru aw yiw ci sa loxo la nekk innaka yow yàlla ala kulli shay'in qadir lépp nga man yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man soo déggee aay ji bi yadikal xayru la wax aw yiw ci sa loxo la nekk waaye waxut la def safaanu yiw waxu ko loolu ay teggin la alxuraan di jàngale yàlla kenn du wax naan ko musiba yaa ko yor wala aw ay yaa ko yor déedéet alxayru rek moo tax ñaar ñoo gën a yaru ci ni alxuraan di waxe jinne yi ak jahannama sawaraw jahannama yàlla daf koo laaj yowmal xiyaam ne ko halim talaati ndax fees nga sawara ñi mu wuti wax waaw ñi mu wuti wax déet te bëgg naa tontu mu ne ko hal min masidin ndax luñ may dolli dafay nekk allahu akbar ndax feex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nekk ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax déet jinne yi it dañoo demam yàgg mënatu ñoo am information ci yàlla tabaraka taala nuñ ko daan amee di ko tasaareel ñi nga xam ne ñooy gisaanekat yi ñu ne ah waaw léegi ñun day laa nurid la la nadri asharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada bi ñuy wax rashadan rabbuhum la ñu wax waaye bi ñuy wax char ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yàlla jàngale fii moo di yàlla kenn du wax naan musiba nangam di ko jëmale ci moom kuy yàlla yàlla tuuli ju lay la mooy dugal guddi fi nahaari ci bëccëg wa tuuliju nahaara mu ne ko yaay dugal bëccëg fi layli ci biir guddi guddi ak bëccëg di duggante wa tuxrijul xayya yaay génne luy dund minal mayiti ci biir luy dee wa tuxrijul mayita yaay génne lu dee minal xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaaw yaay wërsëgal ku la neex di xayri xisaab ci lu dul réglé ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan ñuy ànd yàlla mooy génne tepp wu wow